aataynaa bu njëkk bi su fekkee kooku mooy point bu njëkk bi su fekkee am nga loolu ba pare mën nañoo wax ne sa kàddu tàbbi sa kàddu tàbbi na kenn jiituwu la fa la ca des nag mooy nga seet ko def li nga xamee ne moom lañu wax al istixaaratu ndax ab jullit lépp lu muy dugg daf ko war a seet seet nag muy listixaar dafa am nu ko sunna tëralee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am nu mu ko tëralee du nga dem ci boroomi pettaaw mu xoolal la du nga dem ci boroomi bant mu xoolal la lislaam dafa am nu mu tëral ne sooy seet mbir noona nga koy seete sallallahu alayhi wax ne ida hamma ahadukum bil amri fal yarka rakaatayni min gayri lfarida summa li allahumma inni astaxiruka su fekkente ne nit ki dafay seet mbir dafa wara julli ñaari rakka ñaari rakkaay nag du bokk jullik farata julli la goo xam ne nii du nekk jullik farata ñaari rakkaa lay julli rakkaa bu njëkk bi mu jàng fatiha ak xul yaa ayyuhal kaafiruun sopp nañ ko ca rakkaa ñaareel bi nga jàng fatiha ak xul huwallaahu ahad soo julee ñaari rakka yooyu ba pare nag ci ngay soog a def ñaan gii nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne sooy seet mbir moom ngay ñaan muy ci mbirum soxna si nga xam ne moom nga bëgg a takk te waxtaan nga ak ay wayjuram bañ joxle seen kàddu waxtaan nga ak kilifaam bam jox la kaddu du maire bi moo lay jox kaddu du kenn moo lay jox kàddu ku dul kilifa ku jigéen ki li ngay ñaan mooy allahumma inni astaxiiruka bi ilmika yow borom bi tabaaraka wa taala maa ngi lay tànnloo ci sa xam-xam astaxiiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika maa ngi lay seetloo mbir mi ci sa kattan yow borom bi tabaraka wa taala wa asaluka min fadlika maa ngi lay ñaan di la laaj ci say ngëneel alazimi yu mag yi fa innaka taqdir wala aqdir yàlla yow dong yaa man man mënuma dara wa taalamu wala alam yàlla yow rek yaa xam man xamuma dara wa anta allaamul xuyuub yàlla yow dong yaa xam li na but suñu boroom wax na ci alquranul karim ne wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi daati sudur biral leen seen mbir seeni wax walla ngeen nëbbu ko yàlla mooy ki nga xamee ne moo xam li nekk ci dënn yi mu waxaat ci beneen aaya ne maa yakunu min najwa salaasatin illa huwa raabicuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala aksar illa huwa maahum ñaar ñoo xam ne nii nekk nañ yàllaa leen ñetteel ñeen ñett ñu nekk yàllaa leen ñeenteel yàlla mooy ki nga xamee ne ñu wéet di diisoo mooy ki nga xamee ne moo leen ñetteel moom borom bi tabaraka wa taala mooy ki xam lépp loolu moom moo tax nga ne wa anta min fadlika alazim fa innaka taqdiru wala aqdir wa taalamu wala aalam wa anta allaamul guyub yaa xam li nëbbutu yow borom bi tabaraka wa taala allahuma in kunta taalamu anna hada al amra borom bi tabaraka wa taala soo xamee ne mbir mii nga xam ne moom laa bëgg muy soxna si ma bëgg a takk xayrun lii fii diini moo gën ci sama diine wa maashi moo gën ci sama dund wa aaxibata amri moo gën ci sama mucc aajila amri wa aajilihi moo xam lu gaaw la moo xam lu yeex la faq durxu lii yàlla na nga ko dogal sëy bii su gënee ci man ci sama diine ci sama mucc lu gaaw ak lu yeex borom bi tabaaraka wa taala yàlla na nga ko dogal wa yassirhu li yàlla na ma ko yombalal summa baarik li fii yàlla na nga ko barkeel loolu bokk na ci la muy ñaan wa in kunta taalam soo xamee yow borom bi tabaraka wa taala anna haada al amra mooy mbir mii charrun lii fii diini maanaam baaxul ci sama diine aw ay la ci sama diine wa maashi ak sama dund wa aaqibata amri ak sama mujj fi aajili amri wa aajili moo xam lu gaaw la moo xam lu yeex la fasrifu an ni yàlla nag ma dëddale ak moom wasrif ni anhu waxdur lil xayra te yàlla nag moo wutal li ko gën xay su kaana bu ko defee kon ñaan gi mooy li nga xamee ne moom lay ñaan daal di tudd aajoom kon lii la sunna tëral ci ku bëgg a takk soxna ni nga koy seete soo jillee ñaari rakkaa ba pare ñaan gi moom la sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan listixaar nag sax na ci sunna ne waxtu wu nekk la ko yonent bi daan def mënees na koo julli bëccëg mënees na koo julli guddi waxtu wu nekk la ko yonent bi daan def te daan na ko baamtu itam ci benn soxla benn soxla daan na ca baamtu di ko def listixaar moom sallallahu alayhi wa sallam soo defee listixaar ba pare nag ci kàttanu yàlla mën na laa won ne lii luy yomb ci yow la wala luy jafe ci yow la waaye itam nag mën na la koo bañ a won mën na laa sawarloo itam ci nga puus def loola mën na laa ñàkk sawar loo itam bu ko defee loolu mooy li nga xamee ne mooy point bi ci topp gannaaw ba nga waxee way juru xale bi nga bëgg a takk nga seet ko ba ca topp mooy nga diisoo xam nga diisoo dafa baax mbir mooy dugg nga waxtaan caag ña ko xam seetal ñi xam soxna si nga bëgg a takk nga waxtaan ak ñoom ñu wax la seen xalaat ci soxna si soxna sa itam ak ay mbokkam sañ nañoo laaj ñu la xam ñu wax la yow yaay kan ak nan nga mel euh, ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci abi xurayrata radiallahu anhu mu ne sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon diisoo la maa raaytu ahadan aksara mashwaratan li ashaabihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gisuñu koo xam ne nii moo dàq diisoo ay saxaabaam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon diisoo nañu xam ne ci sunna yonante bi la sallallahu alayhi wasalam ndax daan na ko def ci mbir moom moo xam ne nii jublu na ko jëlee nañ ci xasan radiallahu anhu di sëtu yonante bi sallallahu alayhi wa mun a góor ñett la am na góor goo xam ne yàlla daf koo jox xalaat ba pare itam mu mën a joxe xalaat ba nangoo diisoo dolli ca la nga xamee na moom la xam am na itam góor goo xam ne nii genn wàllu góor la ndax yàlla jox na ko xel jox ko xalaat waaye du diisoo am na koo xam ne nag yàlla joxu ko xel joxu ko xalaat te du diisoo mooy ñetteelu góor bi léegi nag ki gën ci góor ñi mooy ki yàlla jox xel ba pare ngay diisoo parce que dafa am benn waykat bu wax na inna allabiba ida tafarraqa amruhu fataqa al umuura munaadiran wa mushaawira maanaam ki am xel dëgg-dëgg mooy koo xam ne soo jubloo ci mbir bu doyloo sa xel rek jëlal sa xel boole koo di diisoo dolli ca la nga xam ne moom nga xamoon wa aqul jahalati yastabiddu bi ra'yihi fa taraahu yactasifu l umuura muxaatira ki réer nag mooy koo xam ne ni sa xel képp dafa laa doy kooku mooy ki moo tax xasan radiallahu anhu na góor dëgg-dëgg mooy ki yàlla jox xel xalaat ba pare ngay diisoo beneen point bi mooy ki nga xamee ne moom nga war a takk ndax war nga koo xool wala waroo koo xool xale yi nag ñoom dañuy wax ni génn na ak moom ñaari at génn na ma ak moom at génne na maa ngi moom lu man ñetti at mais fii ci lislaam dañuy wax di def te saa ut di laaj ndax war nga koo xool wala waroo koo xool sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne moom lañuy ñuy roy dafa wax ne ida xataba ahadukum imra'atan fa quddira an yara minha baada ma yad'uhu ila nikaahiha falyafaal nee na su fekkente ne nit ki dafay ngoro yàlla dogal ci moom mu gis ca ndaw sa lu jar mu takk ko na ko takk kon loolu dafay wane ne kon ñàkk man xool ki ngay takk dagan na ci lislaam su yàlla defee ngay ngoro te yàlla dogal ci yow nga gis ca moom parce que soo xoolul doo gis nga gis ca moom luy tax nga war koo takk kon dagan na nga takk ndaw li jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne kuntu inda nabiyi sallallahu alayhi wa sallam dama nekkoon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk dama takk soxna soo xam ne ci waa ansaar la bokk takk naa soxna te ki ma takk ci waa ansaar la bokk ansaar mooy ñi dëkkoon ci madinal munawwara sallallahu alayhi wa sallam naka a nazarta ilayha ndax xool nga ki nga bëgg a takk ndax xool nga ko mu ne ko déedéet xoolu ma ko de mu fa ne ko fazhab fanzur ilayha fa inna fi ayunil ansaari shay'a demal nga xool ko ndax waa ansaar bari na ci ñoo xam ne seeni bët dafa am lu ca nekk demal nga xool ko ndax waa ansaar bari na ñoo xam ne seeni bët dafa am lu ca nekk kon loolu dafay wane ne ki ngay ngoro nga xool ko maanaam dagan na ci lislaam waaye nag Euh, nan nga koy xoole ndax ni ko xale yi di xoole nga koy xoole wala am na beneen façon xoolin euh, mbirum joxante ay photo lislaam am na fu mu ci yem rafetluwu ko ci koo xam ne nii takkagoo ko ndax nga jox ko ay photo yu bari ak façon photo façon ba ngay photo woo moom ku jigéen ki ku góor ki itam ak façon ba muy photo woo jox la ko su yàlla dagal daga defee ngeen sëy dara nekku ca waaye su yàlla dagaree sëy amul seen diggante foto yàlla ndaw sa joxoon des ci yow foto ya nga ko joxoon des ci yow te ndaw sa nekkub jàmbur ci yow ndax loolu dagal na loola tax boroom xam-xam yi ne daganul ñuy weccente ay foto ndax wóorul ne ki ngay ngoro dana nekk sa soxna wala du nekk sa soxna su nekkul sa soxna foto ya des ci moom ay photoom tam des ci yow te mu nekk ak jàmbur ci yow dootul nekkati loo xam ne ni lu dagan la ba ca topp mooy wéet ak ki nga xamee ne moom ngay ngoro ndax war ngaa wéet ak moom wala déet boroom xam-xam yi d'accord nañ ci ne man ngaa toog ak ki ngay ngoro waaye nag ci kanam ay kilifaam ci kanam ay kilifaam kër gu nekk saal am na fa soo demee di seeti ki ngay bëgg toogal ci saal bi woy juróom toog ci saal bi la ngeen di waxtaan ngeen bokk ko wax ci kanam ay kilifaam loolu mooy li nga xame ne moom la lislaam daganal wuuteeg nag liberté bi nga xamee ne jox nañ ko xale yu jigéen yi ki ngay ngorool dangay ngay wax ni génn naak moom ñaari at ah génn sax lañ ko tudde mooy doo ko fekk si ci kër ndeyam amaana sax moo lay fekk si ngeen dem doxi wala ngeen dem ci boîte yi loolu du loo xam ne ni lislaam daganal na ko am na kilifa yoo xam ne sàggan nañ càggante goo xam ne nit ki su dikkee di seet si seen doom dañ ko naan demal mi ngi ci néeg bi wala su leen fekkee ñu nekk ca néeg ba yaay ji génn ca bitti bàyyi leen ñoom ñaar ca néeg ba ku nekk xam ne na loolu bari na ci suñu réew mi te loolu nag dëppoowul ak lislaam beneen bi ci des itam muy waxtaan ci téléphone wala di bindante leetar dara nekku ci ci lislaam waaye nag na waxtaan wa yem ak bindante leetar ba yem ci yan condition lañuy doxalee sëy bi nga xamee ne moo war a dox seen diggante beneen point bi itam muy ki nga xamee ne da nga dikk di ko bëgg nga fekk keneen di ko bëgg ndax lislaam may na la ko wala lislaam mayu la ko lislaam mayul kenn nga waxaale marsandiisum jàmbur sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abi xurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yaxtubu rajulu ala xitbati axiihi xatta yankiha aw yatruka daganul ci góor mu dikk fekk sa moroomum góor di ngoro ngolo gi nag wax naa leen ne pour mu wér mooy kàddu ya nga xamee ne moom lay wax ak kilifaam ak tontu ba nga xamee ne moom la ko kilifa ga di tontu foofu la ngoro ga waaw fekk koo xam ne dikk na tàbbal kàddoom ci jigéen waratoo cee tàbbal sa kàddu fii takkul wala mu bàyyi loolu moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ci hadis boo xam ne nii abi hurayra radiallahu anhu mooy ki nga xamee ne moo ko nettali su fekkente ne nag da dikk di ngoro jigéen te xamoo woon ne eh, kenn tàbbal na ca kàddoom loolu da def loo xam ne ni xamoo ca dara loolu benn bàkkaar waru ci waaye nag bàkkaar bi mi ngi nekk ci nga xam ne diw tàbbal na ci kàddoom nga dikk di ci tàbbal sa kàddu am na ci jigéen ñoo xam ne lislaam dafa araamal nga dikk wax ne dama ko bëgg a takk wax naa leen ne araam na nga ngoro koo xam ne ni keneen daf ca allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah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 أن محمد رسول حي على الصلاه حي على الفلاح bokk yi ñu continuer waxtaan wi eh, waxoon naa leen ne daganul nga fekk koo xam ne dañ koy ngoro nga di ko ngoro waaye itam nag araamal nañ maanaam nga dikk di ngoro koo xam ne nii dafay nekk ci idda idda yoo xam ne nii boroom këram dafa faatu wala idda yoo xam ne talaax baa in la dañ koo fase ñetteelu fase muy jàpp idda kooku araamal nañ ci yow nga dikk di ko ngoro ne ko dama la bëgga takk soxna mooy a tasreex bi mais nag may nañ la ki nga xam ne dafa nekk ci idda boo xam ne boroom këram dafa faatu wala tallaax baa in la fase moo xam ne ñetteelu fase la mu nekk ci idda may nañ la nga gaaral ko wax ne bëgg naa soxna su mel ni diw loolu gaaral la waaye bul dikk na ko bëgg naa laa takk mais man nga ko may nañ la nga gaaral ko mais mayuñu la nga leeral na dama da koo bëgg a takk loolu li kay firndeel mooy waxu borom bi tabaaraka wa taala bismillahi arrahmani arrahim wala junaha aleykum fi ma arradtum min xitbati nisa maanaam gaaral ci soxna soo xam ne ci idday boroom këram dafa faatu ci la nekk walla ci fasem talaax baa in ca la nekk may nañ la nga gaaral ko mais mayuñu la nga leeral ne danga koo bëgg a takk waaye ki nga xamee ne dañ koo fase fase moo xam ne talaax raja'i la ñu fase ka benn fase mu nekk ci idda walla ñu fase ka ñaareelu fase mu nekk ci idda loolu talaax raja'i la parce que su nekkee ci idda ji borom këram mën na koo jëlaat kon jàppal na kooku jabaru jàmbur la may ko moom itam mu wuyu beneen góor bu dul ki nga xamee ne moo ko fase woon kon araamal nañ nga ngoro koo xam ne dafa nekk ci passé moo xam ne talaax raja yi la dañ koo araamal mayuñu la sax nga gaaral ko lañ la may ca ki nga xamee ne boroom këram dafa faatu muy gaaral ko mayuñu la ko ci ki nga xamee ne talaax rajai la eh, kon ñooñu dafa nekk ñoo xam ne dañoo araamal nga ngoro leen léegi ki nga xame ne moo dikk di bëgg sa doom wala ki nga xamee ne yaa ko yilif may nañ la yow kii kilifaam am loo xam ne mën nga koo seet ci moom te itam nag mag ñi dañ ko daan seet muy diineem ak jukkoom su la diineem doyee mën nga koo may ki nga yilif su la jukkoom doyee mën nga koo may ki nga xamee ne moom nga yilif bu ko defee kon ni nga xamee ne noonu la ku góor ki kilifa ku jigéen ki di seetee ki mu war a may doomam ci diineem ci jukkoom te su ko diineem doyul jukkoom dayu ko sañ naa wax ne duma la may sa ki nga xamee ne maa ko jaboote te lay lislaam lay ay teggin itam kooko mu seeti feneen waaye nag bokkul ak li xew ci jamono ji nit day dikk ne la dama bëgg sa doom diineem doyu la jukkoom doyu la nga delloo ko mu dem ca mairie ba xale bi am na dix-huit ans ñu defe leen certificat de mariage parce que loi bi mayee na ko xale bu jigéen bu am dix-huit ans xale bu góor bi itam majeur am ngeen droit dem ca mairie ba ñu maye leen te kenn du ca man dara loolu mbir la moo xam ne mag ñi fi nekkoon muy code boobu xeex nañ ko ba tàyyi Cheikh Mouhamadul Fadal Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Alhaaji Ibrahima Niass xeex nañ ko ba tàyyi mais xam leen ne loolu moo fi nekk suñ majeure maanaam ñoom kilifa gi dañ koy laaj xalaatam mais kenn du ko laaj accord kilifa gi xalaatam lañ koy laaj mais accord amul ci solo ci mu maye doomam waaye loolu bokkul ci li nga xamee ne mooy lislaam sallallahu alayhi wa wax na ci xadis boo xam ne ñu ko jëlee ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne ida xataba ilaykum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuuhu su la diina ju doyee jukkoom doy la nanga ko may illa tafaaluhu takun fitnatin fil ardi wa fasadin arid waaw su fekkente ne nag diineem baax na jukkoom baax te mayoo ko nag fitna lay indi waaye nag sañ nga nag su la diineem doyul jukkoom doyu la nga bañ koo may sax njaboot sëy am na ay ponk am na ay condition moom sëy ko ponk yi ak condition yi dañ ko war a respecté ponk mi ngi mel ni benn néegu ñax rek boo xam ne juróomi jën ñoo koy yenu jën bu ca manqué rek néeg ba dana néew doole ponk lislaam mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaama salaati wa itaa zakat wa sawmi ramadan wa xajjil bayt yooyu bu ci manqué rek lislaam bi dafay des sëy itam dafa am ay ponk ponk bi njëkk ci ponk sëy mooy azawjaani alxaaliyaani min al mawaane ñaar ñi war a ànd muy ku góor ki ak jigéen ki lay tax sëy araam seen diggante dàqu ku góor ki ak ku jigéen ki war a ànd lay tax sëy araam seen diggante dàqu bokk na ca lay tax sëy du daggan seen diggante muy lu mel ni la ma waxoon ki nga xamee dafa nekk ci idda fii ak mi ngi nekk ci idda kooka daganul nga koy ngoro su fekkente ne talaax la boo xam ne talaax iddatu wafaat la may nañ la nga gaaral mais mayuñu la nga biral fe fekkente ne idda boo xam ne talaax rajai la mayuñu la nga gaaral mayuñu la nga biral kon kooko ñaar ñooñu waruñoo ànd ci jamono jooju beneen bi itam mooy ñu am mbokk deret bu dox seen diggante wala ñu bokk nàmp ci wenn ween loolu am na ay alxuraan bu ko leeral ci kanam suñu ko temps bi mayee danañ ko leeral suñu ko maylu itam su beneen yoone danañ ci waxtaan incha allah bu ko defee kon ñaari yi nga xamee ne mooy tax ñu war a ànd sëy du araam seen diggante dàqu kooku mooy première ponk bi ñaareelu ponk bi mooy li ñu tudde al ijaab mooy kilifa ku jigéen ki nga dem ci moom mu jox la accordam jox la promesse su fekkente ne loolu am na al ijaab am na nangul nañ la nangul nañ laa may ki nga bëgg a takk kooku benn ponk la boo xam ne mënu la ñàkk ñetteelu ponk bi nag kooku mi ngi aju ci ku góor ki ki nga xamee ne moom la ñuy may parce que suñ la mayee ba pare itam yow mi ñu may liñ la may danga ko war a nangu loolu lañ tuddee alxabuwul muy ku góor ki wala ñakk fa teewal ah, ku jigéen ki wala ñi nga xamee ne ñoom la baayam def ndénkaane na nañ ko maye wala mu defal leen procuration ñoom ñoo war a joxe ijaab ku góor ki wala ñaka teewal suñ leen mayee ñu nangu loolu mooy ñeenteelu ponk bi waaye nag sooy mayee dafa am baat yoo xam ne moom nga war a jëfandikoo parce que baat yooyu dafa ñëw ci alquranul karim lu mel ni nga ne zawajtu takkal naa la wala nga ne an kaxtu may naa la doo wax ne danaa la may de doo wax tam ne danaa la takkal da nga koy wax ne ka takkal naa la sama doom wala may naa la sama doom bu ko defee loolu mooy kàddu yi nga xamee ne moom lañu war a moom la ku góor ki waliyu kilifa gi war a jëfandikoo wala ka nga xamee ne moo yara kàddoom borom bi tabaaraka wa taala wax na ci alquranul karim bismillahi arrahmani arrahim fa lamma qada zaydun minha wataran zawajnaakaha zeyd ibn xaarisa radiallahu anhu dañ ko mayoon yonent bi yonent bi adopté woon ko def ko mu nekk doomam bi mu waree takk soxna yonent bi yabal ko ci ay mbokkam mu takk fa soxna mu dem ci ay mbokkam takk fa ku wax zeynabu bintu jaxshin moom zeynabu zeydu moomu yàlla dogal nag seen diggante naqari ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yoon di tawat seen diggante bu naqari diggante Zeynabu bintu Jaxsin ak Zeyd ibnu Xaarisa yonent bi jubale ba tàyyi waaye ba jëmmi jamono yàlla dogal jubale jafe ñu tàqalikoo ñoom ñaar biñ tàqalikoo nag boroom bi tabaraka wa taala jox ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu takk zeynabu bintu jahshin te xam ngeen ne euh, zeyd ibn xaaris yonent bi daf ko defoon doomam te araam na nga takk soxna soo xam ne sa doom moo ko doon denc nga xam ne kon aaya bi am na leneen lu mu leeral bokk na ci li mu leeral mooy doom ji nga xamee ne dañoo araamal nga takk soxnaam mooy sa doomi geño ji nga julal sa bopp mais du doom ji nga xamee ne danga ko koo adopté waaye su ngeen gisee aaya bi li fi yàlla jëfandikoo mooy zawaj naakaha ah mooy takkal nañ la ko kon baat boobu kuy maye soxna moom nga war a jëfandikoo ndax moo ñëw ci alquranul karim beneen baat bi ñëw ci alquran karim muy an kaxtuka wala tankahu maa nakaha abaukum min an nisa bu leen takk soxna yi nga xamee ne seeni way jur yu góor ñoo leen takkoon ba tàqali ko ak ñoom kon foofu andi kaaxu moom moo ñëw ci aaya boobule kon sooy mayee sa doom jëfandikool ñaari baat yooyu le wala la muy firi ca làng ba nga xamee ne nii moom nga dégg kon aaya bi am na luñ ci jariñoo mooy doom ji nga xamee ne moom la yàlla araamal nga takk jabaram mooy doom ji nga xamee ne danga nga koo jur ci sa geño euh, bokk na ci charte yi nga xamee ne mooy tax say wér bi ñu génnee ci ponk yi léegi mu des li ñu tuddee ay shuruut condition condition yi nag ba ca jiitu mooy li ñu tuddee al waliyu lil mara ku jigéen kii dafa war a am kilifa kilifa gi am na priorité suñu yàlla mayee jot gi wala temps bi danañ waxtaan ka ca jiitu ak ña ca topp waaye sëy pour mu wér il faut mu am kilifa kilifa gi mooy ki nga xamee ne ci loxoom ci la ci la ñu war a mën a mayee ndaw soos nga xam ne moom la ñuy mayee te keneen ku ko maye ku dul kooko sëy ba du wér ci sharia al islaamiya jëlee nañ ci abi muusa al ashari radiallahu anhu mu ne laa nikaaha illa bi waliyin sëy mënu la wér te kilifa mayewu ko kilifa ku jigéen ki laa nikaaha illa bi waliyin kilifa googule wax naa leen ne dafa am ku ëpp priorité ak ña ca topp waaw balaa a maye walla meeree maye ñooñu dañ dul nekkati ci kaw àdduna waaye feeg ñooña ngi nekk ci kaw àdduna keneen waru la maye ku dul ñooña laa nikaaha illa bi waliyin hadis bi Abu Daawud mooy ki nga xamee ne moo ko nettali ki nga xamee ne mooy kilifa gi war a maye moom itam am na ay conditions yoo xam ne mooy tax mu mat kilifa ba ca njëkk mooy mu mat nekk mu kallaf mu majeur ku majeuragul mënoo nekk kilifa at takkilif ñaareel bi mooy condition lii tax mu mat kilifa mooy li ñu tudde ak zukuriya mu nekk góor jigéen mënula la maye jabar jigéen mën la maye boppam azzukuriya il faut mu nekk pour nga mat kilifa ba ca toog mooy alxurriya mooy mu nekk gor xam nga lislaam def na ay facilité def na ay facilité yu war a mën a tox ak njaam jóge fi waaye itam nag bi mu ko fi fekkee fi la ko bàyyi moom lislaam moo tax pour nga mën a nekk kilifa il faut nga nekk gor pour nga mën a nekk kilifa itam ki ngay maye il faut ngeen bokk diine maanaam su xale bi tuubee dog dugg ci lislaam bàyyam nekk ci beneen diine bu bokkul ak diiney lislaam mun la maye doomam joojale kon ittifaaqu diin ittifaaqu diin ci la bokk maanaam ki ngay maye ngeen bokk diine su ngeen bokkul diine lu bari dafay dàqu seen diggante même ak donnante sax dafay dàqu seen diggante moo tax am na borom matnu raxbiya su ma juumul nee na wa yamnau shaxsa min al miraasi waxidatun min ilalin salaasin riqun wa qatlun wa ixtilaafu diinin fa la fafham fa laysa shakkuka al kon ki nga bokkulul diine mënoo nekk kilifaam kon ñu yem fii ba yàlla mayaat ñu jamono ñu mën fee ñëwaat ndax lu gudd la am na ay àq yoo xam ne ni àqu ku jigéen ki la am na àq yoo xam ne àq ku góor ki la su yàlla mayee beneen jamono occasion danañ ko waxtaane di ñaan ñi nga xamee ne ñoo fi jógee ci ay kilifa yàlla jéggal leen xalif général de Layène xalif général Thiénaba ñëpp yàlla jéggal leen yokk seen leer ci àjjana suñu wóllëre yi fi jógee itam ku mel ni ma du Bay di say meeru njaareem Limaamu Laay yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko yàlla yàlla jéggal suñu suñu ñu ngi faatu ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin